Alors, le parti PASSEF aura en face euh, le président de la République d'alors, Macky Sall, l'ancien Premier ministre, Barthélémy Diaz, euh, Alassane entre autres. Est-ce que l'Assemblée Assemblée nationale bi ñu presque cohabitation à na nom, euh, même scénario non sais ko parce que nous avons quand même une élection présidentielle, présidentielles sénégalais se sont prononcés très clairement mhm. ah, vraiment rejeter le loo nga xam dafa système système bi moy en tout cas ces 60 dernières années nous fi au pouvoir té ñom retrouvé retrouver wat après chaque alternance donc après 2000 ils se sont retrouvés après 2012 également ils se sont retrouvés ensemble donc former les diverses coalitions yu fi jot dont la dernière moy Benno bok Yaakaar nga xamné ne na léegi ñoo ngi configuration té sénégalais yi gis nañ ni seen and amul sincérité seen and lu ko laal rek intérêt Faire nous nañu am le maximum de postes possibles daf ay seen combinaison daf seen euh, combine pour en tout cas mën siège siéger assemblée nationale pour mën une am immunité parlementaire parce que ñu si ëpp lu ñuy daw euh, faute de gestion am crime ay crimes économiques financier na ay crimes financiers yu nga xam ne def ko ah ñoo daw justice bi justice bañ leen mën a donc di wut ay immunité parlementaire tey euh, ñenn ñi normalement haute cour de justice moo leen mais haute cour de justice l'assemblée assemblée bi e législature depuis octobre 2022, nous avons mis mettre en place loolu la loi bi wax règlement intérieur bi wax. Mmh. mais nous avons mis duñ mettre en place pendant deux ans une législature haute cour de justice existait Donc, donc législature il faut que ñu installer haute cour de justice pour nous juger yenn suspect yi wala yenn euh, ñoo xam ne dañ leen accusé te ñooñu nga xam ne haute cour de justice rek que leen mën a jugé. Mm. du du benn épée de Damoclès bi ngeen bëgg a teg tey yi si bopp yenn candidat yi nga xam dañoo déclaré wu tey ñëw ngeen leen di menacer avec cette haute cour. non non menacé wuñu kenn mais loolu loi bee ko wax euh, loi bi ku nekk maanaam dafa am égalité des citoyens devant la loi et devant la justice tey mënuñoo sénégalais boo xam ne le sénégalais lambda su fekkee délit bu ndaw la daf euh, ñu daan ko teg ko ay daan yu metti euh, nous avons peut-être dañu am ndombal tànk wala da dafa nous occuper ay euh, poste de responsabilité ñu ne ñooñu dara du ci xew haute cour de justice nous avons constitution qui moo prévoir règlement intérieur bi moo prévoir donc dañ ko war a maintenant mettre en place la haute cour de justice ça ne veut pas dire que nous fay juger pour nous juger là déjà il faut que ñu am instruction euh, di nga am droit à la défense di nga défendre su fekkee nag sa dossier jàpp nañ ni on ne ko pas juger parce qu'il y a des charges charges suffisantes la ñu juger la mais jugement ne ça veut pas dire que nous nga dinañ la condamner mais au moins il faut que procédure soit tegu au moins mécanisme soit tegu c'est le minimum parce que euh, haute cour de justice suñ ko avons pour ñoo nga gérer won nañu rek mais nous sommes en place également <laughs> mais mun dal suñu kaw. wa mais actuellement focus bi si ñom ngeen ko def El malik dit que si bop ba ba si vous faites allusion à Macky Sall. Euh, bon mais tout justiciable Tay, euh, ñëpp nga xam ne tey nañ ni daf nañu ay crimes yu nga xamné ay crimes économiques ay crimes financiers wala yeneen crimes yo xamné tay c'est passible euh, de poursuite devant la justice dañ leen wara top waru ñoo sépp kenn ne kii il est hors hors hors hors de toute poursuite mm-hmm. sinon ay intouchable sinon de yaakaar naa ne nekkatuñu ci république république lool moy différence am ak monarchie donc, nous une monarchie de droit divin ou monarchie absolue. On est dans une république où les règles sont applicables à tous. Maintenant, on mhm. une catégorie de personnes ou de personnalités qui ont aménagé des procédures spéciales. Mais les procédures spéciales, il faut que nous effectives. Parce que ce n'est pas pour rien que nous, malgré que la loi a voté depuis euh, l'année dernière, en 2 août 2023, le pôle judiciaire financier, mais nous, on a fait en sorte que euh, ce n'était pas effectif ñu installer installer leen jox leen ay bureau nommé juge yu fa wara nek pour ñu mëna commencer daf seen liguey parce que dëkk bi demande sociale bi c'est vrai moo ngi ci éducation bi moo ci santé bi moo ngi ci xeyu ndaw ñi ak yenen ak yenen mais amna une demande sociale également de justice et de transparence bokku nañ ci lu nga xamné lool nañu falé le président Bassirou Diomaye Fay la la réduction des comptes té mom daf daf nako priorité orientation majeure le par rapport à ce projet là donc euh, pour terminer sur ce point là les mm. sénégalais ils seront cohérents avec eux-mêmes Les sénégalais ils nga 54,28% au président Bassirou Diomaye Faye ont mobilisé encore plus pour may les moyens législatifs les moyens budgétaires pour que le projet Bob nous le président mën ko en œuvre à travers l'Assemblée nationale